تركت ما كان لي بالبيع مبتغيا ما علم لي يا بحاجتي di julli di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. di am mbégte mu rëy. di am mbégte mu rëy. ci ñëw gii mu ñëw ci kër gi. du ñu ni guleet. fii miin nanu ko. di santaat yàlla bu baax. di nuyu soxna Astou. di nuyu nag soxna Astou. nag day mi ma tàbbaloon ci kër mi ma tàbbaloon ci kër gi. di nuyu nag soxna ki ne coon mu baax mii di wax lu baax di ko def. ndax moom. ndax moom. lu baax lu ne. lu baax lu ne. daf ma ko yéene. daf ko yéene seex bi. lu mu gis lu rafet rek. lu mu gis lu rafet lu ne. yaakaar ne pour man la. yaakaar ni seex bi moo ci jekk. lu mu gis lu baax ci wax. lu mu gis lu baax ci wax. yët ñu ko. mu yët ñu ko. loolu nag. loolu yi nag. moo tax ñu am mbégte lool. moo tax ñu am mbégte lool. ci daje ak moom fii. ci daje ak moom fii nag. wax na dëgg nag. wax na dëgg nag. sudul woon fii ma ñëw. sudul woon fii ma ñëw. fu may dem. fu may dem. ñooy ànd. ñooy ànd. ndax ndax xel mu sel ndax xelam mu sell macha allah. macha allah bi nekk ci moom. bi nekk ci moom. Euh, bis bi nag màgg na màggaay boo xamante ne. bis bii nag màgg na màggaay goo xamante ni si. alquranu karim bu wàcc yonent bi alayhi salaatu wasalaam alquran ci la wàcc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, waajuram wu tedd waajuram wu tedd soxna baali soxna baali eh, jële ndigal gi jële ndigal li ci waajuram wu tedd ci waajuram wu tedd daan ko doxal daan ko doxal ba tey mu agsi ci loxoom moom ba tey ji mu agsi ci loxoom yàlla yàlla li li sëñ Fallou wax rek. lii sëriñ Fallou wax rek mooy dëgg. nee na bokki génération. nee na bokki génération. faaw ñu ànd bokk doxal. faaw ñu ànd bokk doxal. loolu. loolu. wax ju réy la. wax ju rëy la. Euh, daf may gën a euh, gën a ñaax. daf may gën a ñaax. ci sama diggante ak moom. ci sama diggante nag ak moom. mi ngi bëgg a yàgg nag. mi ngi bëgg yàgg nag. Euh, li ma gën a jàpp ci moom nag. li ma gën a jàpp ci moom nag. mooy yaram. moo yar bi. ak teggin gi ak teggin yi. ak euh, bëri sutura. ak bëri gi sutura. lu bëri. lu bëri. ci réew mi ci réew mi. jaga dina woon. jaga dina woon. su ma yegsee si waajuram. su ma yegsee ci waajuram. ñu waxtaane ko. ñu waxtaane ko. moom daan na uti pexe. moom daan na ci def ay pexe. ba yooyu sedd ba yooyu sedd guy yu ci bari nag ci réew yu ci bëri nag ci réew moo tax yenn saa yi sax ma seen nit wax dara ci tele bi mooy tax yenn saa yi léeg-léeg ma seen nit wax dara ci tele bi ne lii de ba mu amee man maa ci dox maa def ni lii ba mu amee maa dox maa kii seexal sa neen day ree damay ree rek ndax xam naa fi mu bàyyi ko ndax xam naa fi mu bàyyi ko te ba mu fay bàyyi ko ca ba mu fay bàyyi ko man la man la moom la moom la waajuram wu tedd waajuram wu tedd wi ak Aminata Diallo ak Aminata Diallo mais kéemaan yàlla kéemaanu yàlla la soxna Assu soxna Assu ñu ngi lay sant bu baax ñu lay sant bu baax. ci dalal gi ci dalal gi. di feddali kóllëre. di feddali kóllëre gi. sunu diggante. sunu diggante. daan nañu ko doxal. daan nañu ko doxal. waaye fu nii. waaye fi mu toll nii. dañu jël engagement. dañoo jël engagement. daagu suraan daagu si waaxu la jëm ci waaxu la jëm su waaxoo su waaxoo ci la jëm ci xel la ndax sa taxawaay ndax sa taxawaay ak eh, yi nga xamante ni ak yi nga xamante ni mooy ay mission mooy ay mission yu ne sa kanam yu ne ci sa kanam nga war koo doxal nga war koo doxal war ko doxal nag war ko doxal nag ak sellaange ak sellaange ndax noonu nga mel ndax noonu yi nga mel lii ma gën a neex ci moom lii ma gën a neex ci moom nag daa mën a téye kóllëre daa mën a téye kóllëre ca ca ca démb ca démb ak tey ak tey ak ëllëg ak ëllëg na mu koy doxalee na mu koy doxalee benn la benn la du soppeeku du soppeeku te loolu am na solo lool te loolu am na solo ci nit ci nit maa ngi sant yàlla nag maa ngi sant yàlla nag. ci daje bii ñu daje. ci daje bii ñu daje. du ñu ko guddal. du ñu ko guddal. feddalante kóllëre la woon. feddalante kóllëre la woon. Euh, gisee saafonte. yal nañu ko ànd ak moom. yal nañu ko ànd ak moom. moom soxna Astou. moom soxna Astou. ay at yu bëree. ay at yu bëree bëree bëree bëri. di ko màggalandoo. di ko màggalandoo. Euh, te sëriñ bi. te sëriñ bi. suñu xel dal na. suñu xel dal na. ci jataay bii. ci jataay bii. ndax moom mii kat. ndax moom mii kat. soxna ne wax na ko. soxna Kiné wax na ko. sëñ Fallou mi. sëñ Fallou wax na ko. amul ku ko respecté wul. ci amul ku ko respecté wul ci yoon wi toogaayam bii mu toog. toogaayam bii mu toog. du du fépp. du fépp. déedéet déedéet. moo tax ma ne sunu xel gën naa dal. moo tax ma ne suñu xel gën naa dal. jikko nag. jikko nag tax na. tax na. ñoom ñaar ñii. ñoom ñaar ñii. ànd bi am. ànd bi am. ndax am na yeneen i mbokk nag. ndax am na yeneen i mbokk nag. dina saafonte ak ñoom. dana saafonte ak ñoom. ndax moom su jàmm la. ndax moom nitu jàmm la. waaye lii mu def nii. waaye lii mu def nii. ñi mu koy defal fii ci Touba ñi mu koy defal fii ñu néew lañu ñu néew lañu. sant nañu nag bu sant nañu nag bu baax. di ñaan yàlla. di ñaan yàlla. suñu jéego yi. suñu jéego yi. yàlla nekk suñu fajub aajo. yàlla na nekk suñu fajub aajo. fan yi yëpp nag. fan yii yëpp nag. may informé Soxna Astou. may informé Soxna Astou. bëri naa tànk Touba lool naa Touba tànk Touba lool. weekend bu ne. weekend bu ne. maa ngi fi maa ngi fi. am na juróom benn weer. am na juróom benn weer. li ko waral. li ko waral. duma ma ko junjagum fii du ma ko junjagum fii mais danaa ci waxtaan ak moom waaye danaa ci waxtaan ak moom incha allahu taala incha allahu taala te suñ si waxtaanee te suñ ci waxtaanee li ma ci bëgg li ma ci bëgg su toqee ci noppam su toqee ci noppam yàlla mun nañu defal ci ndimbal yàlla mën nañu cee defal ndimbal ci barke yonent bi ci barke yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci barke Cheikhul Khadim ci barke Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasul dama wax benn nit dama wax benn nit ma ne li ma soxla ci réew mi ma ne li ma soxla ci réew mi kenn rek moo am générosité jox ma ko. kenn rek moo am générosité jox ma ko. muy Cheikh Ahmadou Bamba. muy Cheikh Ahmadou Bamba. loolu nag kiimaan la sama digganteeg moom loolu nag kiimaan maa maa ngi koy topp nag. maa ngi koy topp nag. moo tax weekend bu jot. da nga ko am de moo tax weekend bu jot. ma ñëw ma ñëw. moom moom xam na jéego yi may def. moom xam na jéego yi. maa ngi sant yàlla. maa ngi sant yàlla. di nuyu ñëpp. di nuyu ñëpp. asalaamualeykum asalaamualeykum. wa rahmatulahi wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Bébé Amen.